Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur vos plateformes Dakar maki, Instagram, Facebook, YouTube et Twitter. Nous sommes le dimanche 24 février 2019, jour des scrutins présidentiels, et au moment où je vous parle, tous les bureaux de vote sont quasiment fermés. Nous allons partager avec vous quelques résultats provisoires. Concernant la commune de Biscuiterie, Narignan, bureau 12, Macky Sall remporte 152 voix, Idi 107, Sonko 28, Madike, pardon, 4, Issa 17. Pour le bureau numéro 4, Makisal remporte 167 voix, Idrissa Seck 113, Ousmane Sonko 34, Issa Sal 21 et Madi 6. Euh, concernant le centre Cher Mohamedou Sarro, bureau numéro 4, Idrissa Seck 33, Macky 32, Issa 4, Ousmane Sonko 14, Madi Kenyan 1 voix. Euh, euh, pour le, bureau, 7 du centre Cher Mohamedou Sakho, Idrissa Sek 21 voix, Makisal 40, Issa 3 voix, Ousmane Sonko 11 voix, Madi Kenyan 1 voix. Concernant les euh, parcelles partiels Adolphe Diagne, Makisal remporte 209 voix, Idi 96 voix, Sonko 97 voix, Madike 7 voix, Issa 16 voix. Nous avons aussi les résultats concernant Pékin Est, le bureau 2, Maki 232 voix, IDI 132 voix, Sonko 53 voix, et c'est le bureau où a voté le maire Timbo. Nous vous revenons pour euh, d'autres résultats complémentaires. Le temps de les recevoir, je vous laisse avec nos invités Tafa Touré et Dibissé. A tout de suite. Assalamu alaikum, assalamu alaikum wa rahmatullah wa ah, le peuple sénégalais. Les chers peuples, mmh. peuple de la femme, peuple de l'homme, le peuple de la jeunesse, mmh. peuple de la intellectuelle. Et peuple de ceux qui sont, tout le monde va tout tourner Bonjour, bonsoir, les chers amis. Mm. Tu bu ngeen le jour des élections politiciens yi xam ngeen ni ñoom ñoo fi nekkoon di expliquer pourcentage yi pour détails yeeg yooyu waaye ñun ay sollicitateurs la. dëgg la modérateur de la république bu leen leen leen di dégg xam ne woon nañ médiateur nga laajte médiateur mënoo xam ne médiateur nga ubbi dictionnaire ñu expliquer comprendre bu bëggee xam les médiateur en personne ñoo ngi ñuy léegi ndax ñun. ay médecin leen dañuy faje te comme boobu ba léegi politiciens yaa ngi nekkoon si campagne yeeg yooyu. entre guillemets bu ndaw ci médecin ay soulage dama am sama benn xarit bu tudd euh, waaw xaaral ma eggale nuyoo bi bala ngay nuyu kenn ak sa xarit di nuyu waa France. di leen nuyu di waa France kuku leen waa banlieue France waa ville France. nuyu waa est non mais damay waa kon yeggalee sa benn xarit waaw problème xarit la yeggaleel man waxuma doo nuyu réew mi nuyu bitim réew nga ne indi sa xarit man am naa fii xarit bii boo mi sama xarit la yaa ngi dégg te nuyooguma ko léegi nag nuyu waa Gambie nuyu waa Tunisie waa Burkina Faso bili fépp fu réew am ci àdduna ñaata teeraam.

Euh, de euh, ah. waaw loolu la fi sunu maam yi bàyyi woon xam nga tey sëy dañuy jëm ci l'histoire retiendra dans la dans la savane ndax boo jàngee l'histoire réew mi nga xam mani li may wax lu nu jàngale la lu nu bind la mooy mag mooy mag ñu njëkk ña laay wax les savants ku ne dégg nga les savants <laughs> ñoom jàmm leen woote woon ci réew mi doxal ko ba réew mi toll fi mu toll ñooñu nga oh, oh. <laughs> wax yal dafa jàmm sëy bul mel ni problème sëy bul mel ni benn problème yal nañu dafa jàmm nag wax ni. Mm-hmm. Mm-hmm. bu l'histoire di wax ni tey da ngay fàttaliku histoire tey sa xel ci lan lay fàttaliku. Mm-hmm. ci l'histoire de Thiel raay. dem na ci wàllu Ndiaye. waaw ndeysaan waaw. sama xel dem na ci nga xamante ni mooy. ah dëgg-dëgg. nga xam mooy le porteur de pancarte te génn bërki démb àdduna ci risque. wax dëgg ne xaal ñu koy jooyta noppeegunu. waaw waaw ndeysaan ah sama xel dem na ci ki nga xamante ni dëgg-dëgg mooy Léopold Sédar Senghor. Mhm. borom la Lion rouge à rouge. Mhm. waaye sama xel dem na ci ki nga xamante ni. mooy Abdel waaw waaw waaw doon euh, mi ngi noonu <laughs> sama xel dëgg la ndeysaan dina dëgg la dëgg kon kon tey bisu l'histoire la. waaw waaw saan moom amoon na fi tent tamit ñooñu ñëpp jaaroon na fi nga xam ne àdduna noonu rek la. rendre César ce qui appartient à César. Mm-hmm. jàmm la ñu bëgg.

da da ngay xam jàmm déedéet dama. waaw waaw léegi yow déglu ma wax la lu ma bëgg wax dama bëgg wax ni jàmm rek la kenn amul njëgam moo tax ma ni seule la paix seul le reste la mone dégg nga wax ji kon yal na nu yàlla defal jàmm defal nu sutur dafa mel ne waxtu bi jot na te sunu invité yaa ngi ñëwaat. bu ma juumul daal. ay këyit. non pourtant ay këyit rek leen ko muule parce que orthographe verbe indicatif am na verbe laisser passer am na verbe venir am na te loolu yëpp boo ko xoolee ay verbe la yoo xam ni boo ko conjugué normalement li ngay wax nit ñi daan koo dégg. waaw xam nga nag fi mu toll may waxante yow Djiby Seye hmm. résultat yaa ngi wàcc. résultat yaay ngi wàcc rajax toj na fii toj na rajax. toj na ba am na ñoo xamante ni wax dëgg kenn waaw lu wa lu waay am na nga ko jël. waaye ay ñoom Kumba Gawla. waaw kon heure bi Kumba Gawla da ngay gagné.

moy nonu bokku nday nonu bokku bay bu dara dara dara dox suñ diggante te bu kenn nangu nak ku ni talo rew wala ko xam dañ lay yebal ci lo xamee ni soko ko ñun la da ngay tar rew mi nako ku ne bañ te boo seetloo sax ñu naan la talal rew mi waaw waaw fekk na ñu dund waaw way way waaw waaw waaw te la taalal réew mi yow mi nga xam yaa ngi doogay député bu ko bu la ka dara jaral vote ngeen ba pare toog leen seen kër jël seen ay déglu seen ay résultat bu ngeen dégloo ay résultat ba seen xol sedd ngeen reer bu suur daal di ful faale waaw waaw waaw wala chocolat sax wala chocolat day dindi stress de chocolat mu ne yow moyen rek mi ngi waaw yow chocolat yow bi dafa baax chocolat bi vitamine C la dafa baax mi ngi noonu chocolat baa ngi noonu kon nag. chocolat yow yow yow mais yow sëy yow pour yow mais à la base de de de arachides la chocolat à la base de arachides la di. xam nga sey tolloon noonu foo xam ni Afrique benn voie la am pour euh, élection. bobu communauté rurale africain yi ak communauté base yi boobu Europe dañuy woté ben, ben représentant lañuy am à l'époque lol 1900 à la poussière yoy rek année poussière yi rek ngay wax année année vert poussière yi vert bobu Afrique ben da daan voté pour Afrique muy nek député noir africain koku jangoko way légui dem non ba mu gi ak volonté Afrique ak jomu Afrique ak travail Afrique ñu dem ba kenn ku nekk ngay cappal sa bopp ci cappukaay bi pare fomp ko jël li nga voté voté ka joxe sa voix kon loolu xam nga yokkute la. kon yokkute kon buñ ko yàq. kon nanu gërëm ñi nga xamante ni ñoo xal yoon woowu. waaw léegi nag ñun ñi nga xam ne suñu loxo la des. nan ko sàmm ba xët génération yii di ñëw dans la future xam nga bu ñu ñëwee fekk fi lii. dafa am solo ah. mm-hmm. euh, boo xoolee ñun ñaar raam mm-hmm. waaw waaw waaw mi ngi noonu waaw Abdou am euh, moo fi nekkoon président mm-hmm. Senghor Senghor a fi nekkoon bi fi Senghor nekkee def travail bi mu defee travail ba pare si la si le président Abdou Diouf ñëw sa ndoro waale nga xam ne yow yaa moom yàlla moo leen boole def travailam bi mu defee travailam ba jeexal président Ablaye Wade ñëw def travailam wala wéy na président Macky Sall président Macky Sall def na travailam tey jii incha allah rabbi procès bi résultat yi dina génn ci jàmm ak salaam. waaw waaw. te gën a liggéeyam ci jàmm. waaw waaw bu rafet. bu waaw waaw mi ngi noonu mi ngi noonu mi ngi noonu na leen nit ñi tey rek na nit ñi tey rek mm. paraj paraj geeg rabaj rabaj geeg këndëng këndëng geeg estati yeeg view yeeg ciné bi na nit ñi di teey ndax réew mi mm. réew démocratie te lii sax dañ ciy jàngale ni euh, yeneen élection yi di ñëw dinañ ko voté ca assemblée nationale waaw ku voté ji ba noppi bulletin ya nga voté jarul nga koy voté ndax ca man njàcce ba la war a yem waaw waroo ko

waaw waaw <laughs> ndeysaan jamono ngi noonu ndeysaan waaw c'est l'époque c'est l'époque ndeysaan waaw nag dëkk bi ñëpp a signé tey nag la woy signé naka signéel ma jee waaw waaw gars waaw kon yaa yaa def jàmm ci kanam sëy temps baa ngi dem de temps baa ngi dem non denc loolu <laughs> ay ca jërëjëf